lu bon ak ku bon du wane waaye lu baax dama koy fësal pour ñi nga xam ne ñoo ko war a def te defuñu ko. Euh, aujourd'hui on a vu yaa ngi def action de li nga ne da ngay jàngale rek man gis nga këccëb euh, ñu dem ci actualité bi directement mu ji euh, làmb ji on a vu que da nga war a bëre ce samedi même ak ki nga xamante ni moom moo di Ziza. ñu dem ba ci digg bi nga def benn declaration wax ni mënatoo bëri parce que sa médecin de force dafa feebar ñu daal ba ci yàgg CNG na la gisuñ ci yow jàngoro jox la ay garab na la boo ko naanee euh, di nga di nga wér li ma bëgg a xam mooy yow di nga bëri tey ci kanam tuuti wala doo bëri. waaw incha allahu rabbi samedi damay bëri. Mhm. waaw kon lan moo la motivé woon bi ngay génn di wax ni mënoo bëri. non incha allah damay bëri. waaw non non dama bëgg ñu ñëwaat ci ci lan moo la motivé woon lu la daloon exactement parce que euh, je ne comprends pas man lan moo tax nit ñi gëmuñ ne euh, boo nee danga feebar effectivement da nga feebar. waa parce que man ni ma mel la man dama amoureuse dama dama dama smiling dama dama dama dama neex man lu ma def nit ñi pour ñu gëm ko problème la parce que dañuy fonne comédie bi laay teg. Mhm. te man visage yu bari laa yor visage yi ma yor mënoo maa canaliser fenn dama gaañu na fi. dama gaañu dëgg dama am problème mu dëgg bu metti lu la gaañ. kii nu mu tëddee dama waroon benn waay gàmm bi yàgg na. Mhm. mu gaañ ma kooku sax yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana am. Mhm. mu gaañu bi bi ma moom sax dafa gaañ. Mhm. mu gaañ ma ma ñëw calmé wu américain yi ma dem Amérique ñu calmé ko ma ñëwaat di. songoo booy ñaa booy ñaa moo ko yee fan yi sàkkal moom laa doon bëreel bëre foo yooyu mu gaañ ma. Mhm. ma ñëw gaañu dugal médical nañ ma bàyyi. médical mais lan moo tax bi ngay signé combat bi euh, fàttaliku woo woon ni da nga gaañu woon. non boobu dara méttiw ma. Ah. affaire yi calmé dara méttiw lii ma ngi ciy fonctionné ay yées dara dalu ma. Mhm. mais bu ma jëlee combat bi songu entraînement yi ak li ma booy ñaa def ak entraînement yi ma songu muy métti mais boo waa CNG ñoo deful yoon. ñoom léegi bi nga dugalee médical. waaw ma dugal médical Balla Gaye dugal médical ñu nangu Modou Lo dugal médical ñu nangu euh, Gris dugal médical ñu nangu Ama dugal médical ñu nangu ba démb démb nii àjjuma démb am na ko dugal médical ñu naan ko Abu Ñaase fële la ne nu mu euh, gën ñu nangu ko. Mm-hmm. man nday mbill gi ñu ne damay bëri tay force. waaye lan moo tax euh, man daal kii comprendre ma nag. feebar ba pare transfert réseau lu ne nga wax ko ñu feebar a ngi hôpital nag xanaa. déedéet lii mooy lii mooy feebar lii nga ne da nga dawee géej balaa ñu naan daa feebar rek mu dee. mais yow mi dawee géej waaye ba seen TV ne da ngaa ne ci forme. feebar waaw parce que instant bii nii day calmé wu damay naan ay affaire muy calmé douleur mais boo yëngatoo day day am problème mais sénégalais daal sa sa tëdd hôpital balaa nga boo tëdd hôpital la nga xam naa ngaa feebar kon fii ñuy dee dina bari de li moo tax tubaab raw ñu tubaab day fàtte avant muy fitti lu leer laa la wax man bu ma demoon nii Amérique dañuy xool ne ma da ngaa war a reposer te sama docteur certificat médical yi nee ma danga war a reposer mais docteur CNG bi moo ci laxas jaan pour lan loolu. lan la la wax naanal garab bii mu calmé wu dara daru la pour lan moom moo xam lu may metti ak CNG li ma leen xeexal yëpp kaasal leen ñu bëgg ma sacrifier man lañ bëgg a saraxe sa tey nañ ma sa saraxe maa ngi ñëw nii stade laa jëm. waa léegi euh, Kër Saalum tax nga de doo tekki li nga tax. tekkiwu lii coriandre moo ma ko jox. kuy coriandre benn saltige la. mu ne bu mu denc sa bopp bi. kon léegi euh, Ketchup actuellement tu n'as le choix da ngay dem bëri. waaw je n'ai plus le choix. mais ñi wax nga ñemewul nag ndax. doo waaw Ziza ñeme naa ko. dafa entraîné waajal làmb ji te man waajaluma ndax sama yaram bi metti waajaluma entrene wu ma ñaanlu ma moom entraîné na ñaanlu na yenn saa damay sentir sama yaram bi di diis gan. ndax sëf yi may def pont yeeg yi may daaj xam naa li muy def yëpp làmb xam naa ci yooyu yëpp ku ci jekku da ngay daaj di sëf di suul ay muus ak lu ne def yooyu yëpp mi ngi ma koy def nii maa ngi toog di gént ay muus ak lu ne waaye maa ngi muñ lépp pour man du ma bëre yaa ngi dégg damay jékki sama ndigg di gën a sama yaram bi sama bopp bi di tëf tëfi lépp sëf la mhm. mi ngi may sëf mi ngi may def yëpp man sëfu ma defuma dara mu bëgg ma bëre dinaa ànd ak sama ngor ndem président de la république Macky Sall moo toog ne du ma bokk te mu waroon na bokk coow mu yëngu mu respecté kàddoom respecté boppam fonk boppam fonk kàddoom man ak sama ak man mi nga xam nag as ndaw laa rek dinaa sàmm sama kàddu kon réew mi fi mu ne nii à partir de at yii waxoon waxeet moo fi amoon wax jëf nag moo fi am ndax président Macky Sall wan na ko moo tax maam gor sama ngor ni damay bëre. léegi yow duñ ko daan wala doo ko daan. xaw lu ma ci xam. ah mais mbëri dañuy confiant dinaa daan waat. man gis naa boo jëlee moom loolu moom la concerné. man xamaguma ndax man damay dem te yàlla tax ni damay dem non non non non. non forcé nañ ma dinaa dem non non non non non parce que boobu ba tey nag maa ngi lay raay raayal nag wax dëgg yàlla. Euh, ketchup yaa lekk fay nañ la wala fay nañ la. fay nañ ma avance bi lekk nga ko. waaw. waaw bi ñu koy lekk xamoon nga ne da nga am feebar. et que en xaw ma woon dama am feebar. mais yow nee woo feebar bi Gambie la dalee. daa wér daa tane léegi la jóg xanaa na fi doo dégg. xamoon nga ni entraînement yi da koy jugal wala. xaw ma ko woon ndax gëj naa entraîné lu mel nii may entraîné nii man depuis 2014 entraîné wu sonn ma yenn sonn yi maa ngi ko soo ko dajaat nii ndax bëgg ndam maa ngi Alaaji Mbay sax doon raay bii dañ maa njëkk a jóg waaw maa ngi dem nag yàlla baax na dinaa dem ñaanal ma rek dañ ma ñaanal yàlla baax na dinaa dem ak sama ngor. Mhm. waaw mais léegi yow li nga bëggoon daal mooy CNG ne ne ma bëre woon nii bu ñu ma ko defaloon nii tey nii ma yebbi samay bagage ku war a bëre ñëw fii di def émission seen TV xam nga ne pare toog kon sa kër ne kii kii jël ndam li Ziza ne ko gañe nga ma ah parce boo ko defee dañ lay aj yow li nga war a def mooy remplir sa contrat dinaa dem remplir sama contrat dinaa dem bëre mënumaa ray foofu xanaa kon da nga jàpp ne da lu ma ci xam koo xam ne entraîné na 6 mois di ñaanlu gàllaaj fees del mënumaa dem sama bët yi gëlëm mu jàpp ma dóor ma mu tëdd fu ma jëm en tout cas lu ma ci def alerte naa damaa woon ñu may force pour mu bëre dinaa dem ndax bëgguma teggi loi loolu rek moo ma yóbbu ci làmb ja nii waaw bëgguma ku ma jam naa ne bëgguma tuy kii ku ma ku ma yeb waaw na yàlla baax euh, euh, Boucher du ko wax a ëpp fay moo tax ci wax laay dund damay wax bay bëgg a dee man wax lu baax wax lu may jëriñ wax lu rafet soo dégg ma ne la ma ñu wax ne maa wax lu bon te du ma ko def ci àddina waxuma dugguma ci coow jàmm dugguma ci yëfu kenn samay nit laay encadré di coow sama coow di liggéey sama liggéey so am samay contenu di publicité samay publicité di wax waxama jik ndeem sëñ am satu mbàkke jaali batu moo ne baleen ko ni mu mel ne ma ñëpp ba ma ni ma mel kookoy sama sëriñ waa kër suñu changement bi waaw. waaw léegi aujourd'hui euh, Ketchup on a vu que Sénégal <laughs> génn na ci euh, euh, xat-xat yu metti en ce qui concerne manifestation yi fi xewoon yow nee nga influenceur nga dégg ñu la nga wax. pat nga defoon pat. man déglu rek. Hmm. Euh, fan yi euh, gis nañu réew mi ni mu yëngoo ñii ne dund bi dafa metti ñu ngi tëj ay nit ñu ne ñu ñenn ñu tuddee leen defe ne politique nga ni influenceur nga nga ni bat. njiitu réewum Sénégal tool troisième day am du am mu taxaw ne moom dootu ko defet nga wéyal dina bat léegi yow kan nga bëgg influencé nga ni. man maa ngi influence ñi may influencé yàgg naa wax ci dëkk bi dëkk bi daa nekk dëkk boo xam fi mu ne nii ku ne ne lijjanti boppam. yóbbu loo yóbbu sa njaboot yóbbu yoo yóbbu sa gis nga dëkk bi dafa metti waxee dangay wax tey boo fi waxee fii ñu jàpp la ne ràpp ci kaso bi xamul lan lañ la mënal firi firi buuse boo dee ñu ne rib ñaari fan dafa am njaboot rib firi affaire boobu f r ak ñaari ëy e tas sa foto nii firi duñ la xeexal duñ la xulool xoolal ñi ñu jàpp ñëpp kan moo ci wax kenn talu leen. ah nit ñaa ngi ciy wax de. Hmm. ñëpp a ngi ciy wax libéré les détenus. libé loolu rek la libéré firi. libéré firi firi firi loolu daa faj dara firi firi firi balaa caag doo lijjit sa bopp. man coow mu kaasuma de doon naa wax ci dëkk bi di ci wax te bu ëllëgee yow mi boo waxee ci dëkk bi suba boo juumee ñooñ ñoo lay saaga. Mhm. ñi naan la firi noonu ñoo lay saaga waat dëkk bi kenn xamul ban façon dëkk la. mais ban jàngat nga eh, réew mi jàmm laa fi gis. Ah. jàmm ak salaam ak tawféex taysir xaadim rusul. réew mi man ay affaire politique dugguma ci woon xaw ma ko. ay mais déedéet fan may déglu waaw dinaa la leeralal man li ma wax ragaluma ko. eh doonuma politique man musuma xam luy politique musuma dugg ci politique ambiance laa doon def damaa dox ba ci yàgg. waaw da nga may déglu rek daa invité. dama rappi rappi ba ci yàgg këlti këlti jóge Amérique ñëw solu ba rafet sangu ba set ñëw toog ubbi samay bët di visionné ndax nit réew boo ci nekkee daa am foo wéeru am foo bokk moo nan la réew mi ma daj ci ku ñu naan laat Diop ba ma dajee ci moom moom a xamal luy politique moo a xamal ku baax moom a xamal ni ñuy doxee moo ma xamal ni may waxee moom a xamal ni may def Lat Diop nekk ku gore xol bi rafet mu yiw baax tabe gore may toog ak moom di ko seetlu nit ñi di ko woo muy jël may toog ak moom di ko seetlu nit ñi ko di soxla muy faj may toog ak moom di ko seetlu nit ñi di ko wax kaay muy ñëw may toog ak moom di ko seetlu ku ko woo mu wuy si la ma ànd ak la jóob bëgg ko sama xol bii du ma ko yemaleeg dara Sénégal man xaw ma ministre xaw ma député xaw ma DG la jóob rek laa xam doomu ndey Saali Xulle ak Omar Mbaye man politique boo ma ci gisee ma ànd ak mindeef bu dul Lat Diop nee ma bugg soxlaw ma ci kenn ndax amul ku jàppale jeunesse bi jàppale wuñu président bi coow li fi nekk nii yëpp du ministre bu jàppale président de la république du député du DG Lat Diop kese mooy jàppale président ndax Lat Diop rek moo ubbi ay buntam li Lat Diop di def bu ko ñeneen ñi defoon barki Seydina Mohamed kenn du dégg Sénégal doo fi dégg lu ñaaw mais soo gisee coow lii yépp président barki démb toog na wax ko Sall nit ku baax la nit ku gore la nit ku yiw la nit ku gën la nit ku am yërmande mais ñi ko jegee ko dimbaliwul moo tax réew mi métti nii moo tax nit ñi di jooy nit ñi di am leen métti tëj seen téléphone yi ne pas déranger wax lu dul dëgg Lat Diop ubbi téléphone am wàcc ci jeunesse bi doon jël télégramme président dama waroon barke rasulillah man damaa yéex a ñëw ci Sénégal nii ay affaire politique mais su ma su ma teeloon a découvrir Lat Diop sama àdduna yëpp laay bàyyi wéer ko ci moom wax président li mu war a def dix personnes bu ko amoon ñu mel ni Lat Diop barke borom Touba sénégalais yi ne ko teel teel dëkk bi ba deux mille mille neuf cent quarante quatre vingt quinze. c'est le maire Lat Diop kenn moom man moom rek laa gëm bu ma DG woo bu ma ministre woo bu ma député woo parce que defuñu fi dara Lat Diop kese moo jàppale président. kese kese kese ndax nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci ngor ànd ak moom ci mbëggeel te moom moo ànd ak moom ci ngor ak mbëggeel ba après mini après après élection après député président de la république nga mën a nekk ak moom di naanandoog moom ataaya Lat Diop mention spéciale moom rek laa gëm googu kenn foofu rek. Boucher show business fan yii dañoo gis ni dafa fi ay yëngu-yëngal gis nañu waa Kër Waal yi deux temps trois mouvement ñu def conférence de presse euh, ñii di wax lii ñii di wax laa ñii di wax li ci yaa ngi suivre yooyu yëpp. parce que suivre ma ko de. influenceur man Pape Diouf laay suivre ak Matar Suba Teel. suivre ma keneen lijjantiwuma ko ñun daal en tout cas suñu nit suñuy nit ñi nga xam ne ñun ñoo bokk suñu globalisation globalisation doo gis ko génn di xalab Pape Diouf doo gis ko génn di xalab Matar Diouf Subateel. du ma chargé koomam Matar Subateel maga rakkam laa ñu bokk ndey ak baay ñun dañoo bokk ndey ak baay suñu groupe. lijjantiwuñu ay conférence de presse keneen. ñun ngay la Matar maa ko mag. ba jërëjëf naa ko mag mu nekk rakk ju am njëriñ kon naa ko mag waaye man dinaa la wax benn affaire barke Serigne Bamba Xaadimu Rasuul ñun suñu groupe ñun Pape Diouf Matar ñooñu affaire yooyu ñun ñi nga xam ñun la ñu xamee ñun ñi nga xam ne ñoo bokk suba teel ñoo fa bokk ñi nga xam ne Matar daf maa jàpp ci loxo ne ma ñii ñoo bokk suba teel kenn jógewu fa te ñu ngi fa ba tey ñi nga xam ni ñoo représenté dara suba teel ñoom ñëpp ña nga fa. waaw Ibou yaa ngi dégg dernièrement on dit. sama yoon néew ci loolu déedéet nag doo fi toog eh, nag boucher dañuy waxtaan. doo fi toog nag bii yuuxu mel ni kuy simb ma lay seetaan mais spectacle rek nga bëgg exagérer. Eh, spectacle ma de dama lay wax dëgg yow ko waxul ak yow doo xam nu mu demee dama lay wax dëgg. waaw léegi ah. dernièrement on a vu waa kër Wally ñu conférence de presse. nee nga suivre leen d' accord je suis d' accord je waa kër suba teel yi Ibro Naajo nee nañ génn na man dégg dégg naa ci sax ñu ne dafa xam ci benn soirée que li tax ñu xam mooy dafa génn suba teel yooyu yëpp xam nga damay romb ci TikTok bi. Ah. ay information yu bëri kon bu ñu amee ay invité c'est normal ñu laaj leen surtout yow mi nekk suba teel est-ce que yi ñuy gis ci internet bi dëgg la. parce que Ibro Naajo Matar papam la papa la ko doon woowee. Ibro Naajo lu mu am ginnaaw yàlla ak yonent bi Matar la. <laughs> Ibro Naajo yaa ngi dégg. Ibro Naajo ku ko la. Ibro naaje ba ma koy jàpp ci loxo di ko yóbbu foofu mu toog ci photo bi ak Matar comme démb ci man Ibro mënul def Matar lu ko naqari mënu koo jaay lu ko saf Matar laa la wax moom la nit ñi di jëriñoo waaye maanaam moom la nit ñi jëriñoo waaye jëriñoowul ci nit ñi mooy jëriñ nit ñi waaye jëriñoowul ci nit ñi Matar c'est à saluer et respecter Matar lii nit ñi di tal nii soo bisee yaa ma koy wax sax soo gisee man doo ma gis ma génn ci wax parce que duma ko yëg ñun yëguñu yooyu Matar il travaille et il continue à travailler c'est le meilleur des meilleurs seen soo bis Matar papa la ci baay bu ci génnoon léegi kenn dootul dégg soo bis Matar bàyyi la ci papa c'est un père seen papa la dañ koy respecter par force barki Serigne Bamba Matar seen baay la ñoom ñëpp ñëpp la c'est à respecter c'est à saluer Matar ku ko yëpp da ko fekk mu nelaw li muy def ci social duñ ko def li muy dimbali doomu aadama duñ ko def li muy jàppale ay xale duñ ko def day fekk ku kenn xamul ku jëriñul dara tekkiwul dara mu jëla def la dara. Matar moo tax boo yi ngay gis ñuy tuxun tukki nii yëpp di fuuy Matar moo leen jox visa ku ci nekk bu lay jox visa 10 ans 2 ans la lay jox du la jox ay 3 jours ak 4 jours c'est le meilleur PDG de l'Afrique de l'Ouest. déedéet barki Seydina Mohamed respecté rek c'est le meilleur à vie nag. c'est un grand monsieur booy bu fi balbal lu def yëpp damay wax nii dem nag keneen ku ñëw wax bu ma ñëwee indi la ay preuve mataara dimbali ñu bari ñoo xam ni wut nañ visa bay bëgg a dee barke sëñ ba mataara lay jël na la kaay deux jours mu wutal la visa nga tukki yabaate fuuy yëpp nit ñi di jaay affaire moo lay xoogaliku loo mataar moo lay dimbali mataar mooy tax nga am néeg di fay sa loas chaque jour moo lay jox caution quatre fois quatre quatre mois nga la soo ñàkkee courant mu fayal la yii muy nii yëpp laaj ko ndax man defal na ma ko barke Serigne Saliou Mbacke Matar xamul sama soxla barke alxuraanu karim mais mag laa ko jàppee ñu jàppee ma rakk ñu nekk ndey ak baay lu ma soxla dama ko koy laaj far force lu mu soxla daf ma koy laaj far force ma def ko mais nim mel laa lay seedeel nii koo fi dégg muy balballu ku miin appartement ñeme ko Matar a tax nga ñeme ko te ba keneen ñëw wax ma génn wax. ku miin appartement mataara tax nga ñeme ko ku miin avion moo tax nga nga miin ko bii avion ku ko xam ne am na ñoo xam ne bi ñu leen ko jox sama kanam dañ doon wax naan retour bi fan la nekk ak arrêt bi fan la nekk arrivé bi seen bàyyi la ma wax loo de demal seen nan la seen bàyyi la barki rasulilaay moo mataar a tax mataar a tax ñoom ñu ñemee ay doxaan wala am jigéen wala am ger mataar moo tax moo leen def nit mataar moo def booy nit booy yëpp nag si suuf biis mataar a leen def nit mataar xoolal ngi dégg ku nekk ci kaayale dinaa la benn affaire tey nga déglu ma caméra jàkkaarloo tegal ma boo yor nga kaamil fii ma jàpp ba set ma teg sama loxo fii du jàkkaar damaa bëgg Sénégalais yi déglu ma Sëriñ Tuubaa kese laa yaakaar te su dee lii may wax ay fen la yàlla bu ma gisanteeg seexul xaddim mi ma yaakaar yow man xiyaam mu yóbbu ma biir aljana billaahi wallahi wa taalaahi barke seexul xaddim na fi mhm. yàlla bu ma gisanteeg seexul xaddim bu dee li ma